ma gore moom ku doylu la ku wóolu Seyxuna Alxadim moom lii mu def day mu gëm defu ko moom ngir wut ci ndamam daa xam ni lii moo diw sasam ci toolu maamam ji Xadim daa xam xadim te sopp ko bëgg ko lool ba tey ko lii ko may mu topp ko ubbil ko xidmatul xadim moo ubbi xidmatul xadim daara ju mag ji ñépp yéen daara ji say xinal xadim doon ñaan ci dëkkam bi xadim moo ubbi xidmatul xadim daara ju mag ji ñëpp yem sëriñ daara ji say xinaal xadim doon ñaan ci dëkkam bi xadim waajal ko it ci jumtukaay ba mat ba mel ni këri baay ñoom manqué wuñu ay matukaay mam baara moo sigil xadim ndongo yi xiifuñu maruñ tarafli wuñ yittee ñu ñoo tatili wuñ yittee ñu ñoo te dun ci suufit ngir xadim tatee ñu ñu seen xel di dal seen xel siñ baara nee na na feeñ ci seeni cër tënku ci xuraanin bu wér fuñ mën a dem waaye dara gën a rafet bis bi sëñ maam baara kooku tuddee mu ne sa Cheikh Abdoulahi borom jën ak joor ndox sëñ Cheikh yebal Cheikh Abdou mu ànd ak rakkam yépp Mbàkke ñu ngi toog ci sa wet sëriñ Moussa Mbàkke doomi sëñ Moustapha Xasaayit di kenn ci sëñ Maam Baara sëriñ bi séeréer la سن مام بار مي دي مامم شيخ محمد لامي بيغنا مامم خادم رسول بيغنا كوسا مام رفات لا جمعه فات وقت ورولا لب تشو ليك لب سيرن توبا رك واي بيغل سمام نك اك تلر سمام اك ديلو سمام جوكل دا غاي ملني مام بار مباكي مي خادم بور مام رسول شيمبا بالا شيبر سيرن مباكي مام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 yéen suñu sang yu tedd yi yéen suñu sëriñ yu màgg yi yéen ñi nga xam ne yéen fi teew te teewal fi mbooleem njabootug sëriñ Abdullahi Mbàkke borom dër bi suñu sëriñ sëriñ Mambaara Mbàkke suñu wayjur yu góor yi ak suñu wayjur yu jigéen yi yéen suñu àndandoo yi ak suñu xarit yi yéen mbooloo mi fi teew mépp ñoo ngi leen di wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu amna ñu mbekté mu mag mu tedd di taxaw ci seen kanam di yëkëti sama kaddu ci turu mbooleem donga yi nga xamni ne ñoo nekk ci biir daara yi interna khidmatul khadim ngir feñal lenn ci mbekté ak tedd nga ci seen teewaay bu rafet bi ak sant len ci ciona yi nga xamni ni ngeen ko ngir ñew and ak ñun ci bisub alquran bu am solo bi ak feñal ci lenn ci liggéey bi nga xamni ni daara ji mo ngi kay taxaw ci ya l'islam ak julli di bi ak liggey bi nga xamni mo ngi koy def ci yoonu murid ala al khusus mbokk yi indi leen lu am solo ci dunduk serigne abdullah mbake borom dëgg <coughs> mom seexul khadim radiyallahu anhuma di len xamal ni mbokk yi mom jëmm ju mag ju teddu joju di seex abdullah mbake borom dër bi Mom la ñu bisum alquranul karim bu tedd bi mbokk yi lu am solo li ma leen bëgg andil ci dunduk abdullah mbake borom dër bi mi ngi ni mbokki julli di mbokki taalibe yi a Cheikh Abdoulahi Mbacké borom derbi mo ngi bayiko ci ñaari waajur yo xamni xani yani ani tahrifi lañu jul ñu len di leeral ndax waajuram mu góor a Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasul waajuram mu ñoo ngi kay wax as sayyidatu Fatimatul Kubra al Muritaniyatu di ko cosaanoo ca Muritani di ko ci ngir gu tedd di ngir gu ñu xam ci xam-xam ak diine Asyik Abdullah Mbacké borom dër bi moo ngi gane jamono ci atum 1327 ci gàddaay ga tolloog 1908 miladiya di atum tubaab babi ca Daaru Rahman ca Jolof mbokk jangum njàngum Abdullah Abdoulahi Mbacké borom derbi bi mbokk Abdullah a Cheikh borom dër bi moo alquranul karim ca daarul alimul Khabir. ci katum al alquran di borom xam-xam bu mak ñu di ko wax as Cheikh Abdourahman Lo ci ndigalul Serigne Touba fa la wattoo alxuraan moom Cheikh Abdoulahi Mbacke borom dër bi ci jamono joo ni ne tuutànk lool ci saahir gannaaw ba mu wattoo alxuraan ba noppi ci la bind kaamil ca loxoom bu tedd ba mbind mu rafet lool te yéeme gannaaw ba mu noppee ci la as Cheikh Abdourahman Lo ànd ak moom ba ca Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Serigne yéemu lool ca kaamil ba ak mbind mu mu rafetee. looloo taxoon Sëriñ Tuubaa waxoon ca wax ju yéeme waxoon te ni haasa xattu yamini lii sama mbindum loxo la mbokk yi a Cheikh Abdullahi Mbàkke borom dër bi moo ngi tàmbalee njàngum xam-xamam ci loxol Cheikh a Fatima Mbàkke di bàyyam bu ndaw ca moom la jànge fànne xam-xam yu bari laataa mu fay dox jëm Cheikh Habibullahi Mbàkke xammihi jànge ca moom it fànne xam-xam yu bari lool ba mujj nekk géejug xam-xam waye lolou lepp taxul mu doy ci la dem taxoo ak borom xam-xam bu mag bu ñuy wax serigne Cheikh Bousso Faty kanim, sëriñ Cheikh Bousso Faty Kani mii te moy ki ci mujj ku nekkon xaritam la nekkoon wóllëreem daawuñu tàggoo lu dul lu néew ak Cheikh abdullah Mbacke borom dër bi jël na ci mom fànne xam-xam yu bari lol te wuute mbokk yi Cheikh abdullah borom dër bi nekk na dir bi yag ci loxoy serigne Touba wayjuram mu di ko tërbiyaa ci loxool boppam ba mujj di ko nuru Serigne Touba ci lépp ngir li nga xam ni moom la Serigne Touba def ci moom mbokk yi a Seex Abdullahi Mbàkke borom dër bi nekkoon na ko womatu lool ci topp yàlla nekkoon ku bari lu muy julli lool nekkoon ku bari lu muy tudd yàlla suñ borom nekkoon ku bari lu muy xalaat ci kiimaani suñ borom nekkoon ku xiir lool ci dugg xalwa ak di wéetal boromam amoon na am néeg boo xam ni Touba la ko tudde woon di fa def xeeti jàmm yàlla yu wuute ak di di yaaleeg boroomam a Seex Abdullahi Mbàkke borom dër bi ak liggéey mbokk yi a Seex Abdullahi Mbàkke borom dër bi liggéeykat la woon bu mag nekkoon baykat bu mag daan béy ci xëy ci gàncax yi yu wuute te li ci gën a yéeme mbokk yi daw ci xaar nawet da daan béy ci noor bi bokk na li ci gën a yéeme mbooleem yi nga xam ni doomu aadama dina ko soxla ci ak dundam as cheikh abdullah mbake borom derbi danako bay ba ci jeun sax da ko amé won kon lii ab soñu la bu rëy ci ñun talibé yi ñu jël jëm ju mag joju ju tedd joju ko ci suñu kanam diko roy ndax serigne touba kat jaamu yalla ak liggey la digal mouride te as cheikh Lahim mbake borom derbi ci tané fi serigne touba yi ñu wara roy ci jaamu yalla ak liggey la bok jikko cheikh abdullah mbake borom derbi mbokki Asyik abdullahi Abdoulahi Mbacké borom dër bi bokk na ci ay jikkoom ku sàmm nekon la lool ci digganteem ak boroomam nekkoon ku dëdd àdduna nekkoon kasira sumti di ko noppi lool waaye di ko ak ay xikam waaye nekkoon ku tabe lool ba jox di jox kiko di jox ndaw di jox mak di as muhammadul mustafa Moustapha Serigne Touba Khadim daan ni man de musuma gis ndaw lu bàyyi ko ca Cheikh Abdoulahi Mbacke borom dër bi ba ñëw fi man lu dul ba dafa indaale lu am solo jox ma ko nekkoon ko tar num tawakkali woon ca suñu borom moo taxoon yàlla taggatal ko mbindeef yépp ñuy bàyyi ko fu ne ci àdduna di ñëw fi moom ndax wa man yatawakkal ala llaahi fa huwa hasbuhu man haju seyxi fii tarbiyati muridihim mbokk yi yoon wi nga xam ne ci la Cheikh Abdoulahi Mbacke borom dër bi daa jaarale murid yi ak taalibe mi ci lay ñëw yi asiyang abdullahi mbake borom derbi bi ya kat bu mag la terbi, nekon ku meuna terbiya nekkon go xamni kuma sa takko mom bam nopi ci yow nga nek borom jikko yu rafet te ku takko yow nga agale ko ci boromam. te mbokk yi moom Cheikh Abdoulahi borom derbi bi ku tok ak mom ba da ngay be sa tak ci sa ak sa borom ak ci sa ak Serigne Touba ndax dafa bokku ci ni Serigne Touba di wax ni ku ak ñom dañ lay soril ak texé di té dañ lay bijji jëmel ci ak texé mo tax ku ma sa tok ak mom bo fa bayiko ba ba ngay delluwaat ca moom doo woyofal jaamu yalla ben yoon ti sa bés Boki da nga ko yok ba jaaxal nga nekkal mbokki ma ñew ci lenn ci dénkaane si abdullah mbàkke borom derbi mbokki mbokk yi ak borom derbi daana denk ak mbollem ñi ko daan dikkal ta ko da wax ni dee leen topp yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallama loolu mooy bi ci njëkk ñaareel ba mooy daana dénkaani di wax ni dee leen may topp li feegi nag may gis may topp yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallama waaye saa bu ngeen gisee ma wute ak ndigali yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallama bu leen ma topp ñetteel ba daana dénkaani di wax ni na ngeen di jiital sàkku xam-xam ci liggéey ndax xam-xam dana bijji nit ko jëme ko ci am koom te am koom du bijji nit ki mukk jëme ko ci xam-xam ñeenteel bi te mooy bi may jeexale mooy daana dénkaane di wax ni bépp sëriñ bu ngeen gis muy bég ci bërigo ay taalibeem bari na ngeen xam ni sëriñ boobee de xamul te yooyoowul kenn di jébbalu si moom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kullu xam wa antum bi xeyr bokki jullit ji fi daje bokki taalibe yi asalaamu aleykum wa noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jaar fi sunu mbokk mi jaar sunu mbokkum taalibe ñépp ñu ànd ñaanal sëriñ Sidi Muxtaar suñu boroom bàyyi ko fi ak nun bam mën a àggale ay naalam kaddu yi nag du tax mu am solo lool ndax suñu mbokk sëriñ xabaan moom sëñ Murtada moo war jël kaddu yi man ñi nag maag mii di xam la rek ne tànk yi ñu fi indi moo fi indi ñépp muy wuy ji wootab suñu borom yàlla ma wax ci alxuraan ne képp kuñ ne wuy jil te yàlla tax kalawoo jaanam wàcc na moo ca des yàlla na ko yàlla nangu liggéey bii nga xam ne moom lay def it eh, ñun xam nañu ko bu yàgg suñu diggante yi deme na noo xam ne mënuñu koo seere ndax ci diine bu ñuy tànn seede danañ ca moytu yaar danañuy moytu di la seereloo ci koo xam ne jaar ngeen fu nekk ci njekk kooku moom buñ la ca seereloo it bu dee lu mu war a dugg lu ko cay génne rek ngay wax dootoo ca maandu bu dee koo xam na it ñàkk waxtaan daa amoon seen diggante it deesu la seereloo ci moom ndax lu mu war a génn lu ko cay dugal rek ngay wax waaye liñ ci mën a wax daal xam nañ ne ku bëgg lu baax la te ku xam dara ci ay yëngutoom rek da xam ne coow rek ci la nekk yàlla ko ci yàlla gën a yàggal te saxaw ko ci di soññ itam ñi nga xam ne sañ nañ ko suñu digganteek ñoom ñu fexe ba dog ah wasalaam <laughs> jërëjëf sëriñ bi magam ju baax ji moo dugg si ñu may ko mu yegg ci sëñ bi bokk yi gis ngeen ko de sëriñ Isaaxa moo dugg si siyaare bu baax sëriñ Afe mu sëñ Moodu Musaa Falilu siyaar mbokk yi lool الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جلدي وقت البي نون عندي سيارة جتا بتد بي سيارة وي جوري طالبي مولم كوفي ني دي واخني جتا بي موم saa borom def na ci tawféex joo xam ne yàlla na ci rajo ngërëmal Serigne Touba. amiin amiin ndax jataay boo xam ni alquran ak xam-xam la. <laughs> ak li ci sëñ bi sof muy xasaayit yi. Serigne Isaaxa Mbacke moom Serigne Bassirou dikk day mel ni jataay bépp mat na kon noonu bu mu fi ñëwee ci turu Serigne bi fekk fi amatul fukkat ndax mooy sëriñ bi mhm. Mhm. kon sëriñ bi yaa fi sëriñ bi nga ñaanal suñu doom ji imam baara ak mboolem di ko jàppale ak ñu mel ni moom ci liggéey bi lislaam bi yàlla dafa leen jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ku xam itam danga xam ne sama teew ku ne xam na ne Cheikh Moustapha Abdoul Aziz baayam te kon ñu bari xam nañ ne hmm. moom la Cheikh moom Bachir njëkk am ci sët loolu nag loo doy la hmm. kon nag yaakaar naa ne buñ fii teewaay bi rek day daal nekk lu nga xam ne lu am solo la ci noonu ñaareel ba itam xam ci bokk yi hmm. xam nañ lool sama diggante woon ak moom moom xaj na moo ma féete woon mag ci wet waaye yàlla noo boole woon boole gu boole gu yéemu boole gu yàgg te dëgg lool nga xam ne bu loolu lépp weesoo li boole yàlla dañoo boole woon ay xarit gis naa dañu jiite woon kon nag loolu doy na sëkk ci sama ñëw fii tey waaye nag eh, sent sant euh, maam Baare mi mhm. Cheikh Mouhamadul Amine ci lii muy def loo xam ne nii bu woon loolu lépp itam yaakaar naa ne waa Kër Sëñ Touba yëpp ñoo war a nekk ci lii kon nag ku ci nekk ku ne ñun ñépp amee nañ la njukkal te xam ne kenn ku ne ca loola waroon nga nekk ku ci nekk ku ne ñun ñëpp nga ci nekkal kon nag loolu moom itam. lu doy la ci sama teewaay na ñaari yëf yooyu tax na teewaay gi ma gën cee sant sunu boroom di ci sant itam maam Baara mi nga xam ne moo ñëwal boppam wax ma ko mu ñor ko lool wax gi ma ko waxit ñor ma lool ndax fasaasa la sama xel daal dem ci ñaar yii ma leen wax léegi muy sama digganteek baayam waaye itam la ko waral wax naa ko fii baayam moom la Cheikh Amadou Bachir jëkk am cib sët ak itam ni nu yàlla boole woon waaye beneen bi itam mooy li nga xam ne bokk yépp ak bokk leen fa indi waaye itam ñépp xam nañ ne itam dañ fee war ñëw ngir gën koo jàppale gën a ànd ak moom ci lii mu nekk muy liggéeyal alxuraan muy liggéeyal maamam ca la nga xam ne moo ko gënoon a ñor ci lépp muy sëñ Tuubaa muy alxuraan kon nag ku ci nekk ku ne ñëpp nga ci nekk kon nag ginnaaw buñ ko santee moom ci boppam muy sëñ Cheikh eh, Cheikh Sidil Mokhtar kon nag ci turam itam mu sant mbooloo mi yëpp yi nga xam ne teew nañ fi te teewal ko fi kon nag jërë ngeen jëf dama leen di sant ñaan yàlla gën a barkeel njàng mi barkeel ñi nga xam ne itam ñoo fiy jànge ba ëllëg si biir ñu mën a wéyal njàng mi eh, muy liggéey bi di liggéeyam sëñ Touba di liggéey sëñ Touba ci alquran te moo doon lépp kon nag jërëjëf jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi fi teew asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi nuyu kenn ku nekk ci tur ak santam te di ko wàcce ci wàccuwaayam di beral sant ak nuyoo euh, sëriñ bi teewal fi sëñ Sidi Muxtaar yal na sëñ Mustafa Mbakke mi fi teewal sëñ Mukhtar di ñaan yàlla yàggal fanam ak wéram di wax rek ni ñoo ngi fi ñëw ci turu ministre de l'éducation nationale Serigne Mbaye Cham mu yebal ñu fi en tant que ku jiite inspection des daara ñu ak suñu xarit bi tek suñu wetu càmmoñ muy Mouhamed Mbodj mu projet PAMOD fii ci senegal ànd ak aadama di frère am ak euh, suñu xarit muy Aïssatou Touré di madame Sow ak délégation CELSI bi ñu àndal lépp jugee Ndakaaru di santaat yàlla bu baax a baax ci lim ñu may ñu fekkee jataay bi ay ati at te saa yi ñu fi ñëwee gën a gis taaru jataay bi mbooloo mi gën a yokk njàngum xale itam gën a rafet yaakaar naa ni li ñu fi dégg ci alquran tey ak ci xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci xasaa'idu Cheikh Ahmadou Bamba ridwanullahi alayhi ak ay xikam yu fi xale yi wax yaakaar nañu loolu bu jibee ci ci ay gone yu ndaw di ay tuut tànk kenn ku nekk sa yaakaar dina yokk kon kàdd yi du gudd dama koy tënk ñetti bar rek bi ci jëkk mooy jotal nuyoo ministre bi yàlla dafa dogal bi sëriñ Maam Baara joxe ma invitation bi ma jokkoo ak moom mu war a dem France xam nga moom yàlla dafa dogal mu nekk président bu comité exécutif bu UNESCO ñu am ndaje ca France démb ñu yendu ci assemblée nationale ci vote budget éducation loolu mooy yéexal demam ma dafa waroon tukki depuis àjjuma mu ne ma nag. xamna sa mambara, ak mam bara fexel ba bo démé nga jot limako sama nuyo ak sama félicitation kuy wër demal fëgg borom bo dënd bo xamné ne ci nek ki gën ci nit ñi moy ki jang alxuraan diko jangalé kon loolu day fatali ni mam bara damay waxtaan nyare lu bari ñaaré saa yu ñëwee mu né babakar man sama yitte yépp alxuraan la ak jangalé ko sama yitte yépp jang ak jangalé ko bi wax dëgg yàlla yow ni ngay jàppaleek ministère bi jàpp yow yaa ñu raw sax far ñun li ñu dañoo bëgg a moderniser daara yi waaye moom moo ñu jiitu te ku dugg ci daara ji ku dugg ci daara ji déglu xale yi ñu jàng nga xool condition yi ñu nekk ak jumtukaay yi fi nekk nga xam ni moom moderniser na bu yàgg avant état bi di jóg. kon loolu yàlla na jëm kanam cheikh bi yàlla na yàlla yokk fan wi yàlla na yàlla barkeel liggéey bi. liggéey bi ak si yéene gi ci am yàlla na ko yàlla barkeel yow wax dëgg yàlla ñun mënuñu laa sant parce que damay wax barki démb rek bi ma ko nee ministre bi dafay tukki du mën a ñëw mu ne ndax yow di nga ñëw ma ne ko man sañuma bañ a ñëw parce que ci daara ji laa bokk loolu moo taxoon léegi naan moom Modou Mbodj cee wax ci turu ministre parce que man ci daara ji laa bokk kon ñoo ngi ñaan yàlla mu barkeel liggéey bi Mbàkke te yàlla jubal ak say mbokk yàlla yokk fan wi li may jeexale rek mooy wane ni maanaam daara ji am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax parce que ñun dañuy wër ay daara modèle daara yoo xam ne bu ñu leen royee daara mën naa gën a suqaliku ci biir Sénégal te wax dëgg yàlla liñ gis fii yéem nañu doy nañu kon ñoo ngi ñaan yàlla barkeel ko te yéene yi nga ci am yàlla na ko yàlla eggale li borom dëkk bi doon ñaan ci këram nekk mawdi al taallumi wa mawdi al fikati wa tafahumi yàlla na ko yàlla sotti ci daara ji ñoo ngi sant di gërëm salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñoo ngi e, dog ngànt bu baax a baax di jégalu ci kàddu yi bu baax waaye dat yi kàddu yi ndigal la kàddu yi soññee la yu bàyyi ko ci sunu sang sunu kilifa muy sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké di xalifat sëñ Abdullahi borom dër bi jëmee ko ci ay mbokkam njabootam kër juróom di kër sëñ Mouhamadul Amin jaare ko ci serigne Mouhamadul Amin mi muy Mam Bara muy kàdduy cant yum ñu ngir lu reey li nga xamne mom lañ jagleel serigne Abdullahi borom derbi serigne bi nee na Mam mi ngi sante bu baax di la ndokel bu baaxa baax ci li nga def di la ci soññaat bu baaxa ndax lu baax ku ko def wala lu war ku ko def desu ko sante waye deesu koy soññi di xamal ne la li nga nekk mooy liy dëgg ndax yàlla subhanahu wa taala moo njëkk a soññee ci alquran yàlla nee na ci suratul xijri nee na inna nahnu nazalna dikra wa inna lahu la kon maa wàcce alquran te maa koy aaral sama bopp kon def nga li la war yàlla waxaat ne inna fi hada la balaagan li qawmin aabidin kon xam-xam la bu ci ne waaye ñan ñan la ñeel mooy ñi nga xam ne ay jaamukati yàlla lañ kon ba tey yaa nga ca yàlla waxaat ne innahu la kitaabun aziz lu tedd la lu màgg la ba noppi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama waxaat ne ki gën ci jaam ñi mooy ki jàng alquran ba xam ko di ko jàngale kon ci ñi gën ngeen bokk Sëriñ Tuubaa sunu yaakaar àdduna ak alaaxira waxaat ne dinun siwa islamihi la yuhmadu indal ilahi wa bihi nujaddidu bepp diine bu nit wax budul islam des ko sant ta dama fe ñew uniquement pour yeesal diine joji yeesal gi nak moy yeesal li mag ñi daan def depp Dine. ak diine muy jang alquran di jang ci yoon wu sel di tek ci ay principe yu sel sëriñ Touba waxaat ne Touba kat bu ñu koy wax ajjana garab la waaye ñen ñoo koy dëkkee mooy ñi nga xam ne dañuy jàng alquran fa tuuba li abdin yaabudullaha rabbahu bi tartili quranin azimin yaqil karba muy lu wér ba tey mu soññaat muridi ne képp ko aju ci man na nga jàng alquran kon sëriñ Touba li mu njëkk a digle mooy alquran moo di wax na ne هو خليل وحبيب لي مغنيا لي عن طبيب به يحبني لبيب يطلب خير اللقم كون موي سما قريب موي سما سوبي موي سما ميدسان بو خامني موماي تريتي سوما دارا جوتي اك دونتي دوكو ني دوكو دارا دي جوت موم مونه كون كل مريد كل مريد بي يلوذ فليدم تلاوه لغير ذكر خضر سم كون اب بيب مريد دافو دي جان القران مو واخات ني كيب كو بغا جيغي يالا na nga wutub serigne tay jang alquran neena man faman man arada alqurba min rabbil wara falyatluban shaykhan wa yatlu suwara batay mo mu ne ku beug jege yalla na ngay jang alquran wa man arada alqurba min mawlaahu falyaqra alquran la yansahu kon ci baat yoy yep nak ci la sofé sofe wax muy kaddu ciant yu señ bi andi di wax ne li nga nek moy li ndax kat Serigne Touba daana wax ne suñ ne ko ay ñoñam wala su nee samay ñoñ nit ñi jàpp ne ku ne la waaye nee na ñoñi alxuraan ñooy samay ñoñ kon ci kaw loolu ci la sëñ bi waxee ne lii nga nekk ma nga ci ànd ak yow bu baax bu mënoon a jóg ñëw sax moom moo jóg ñëw waaye xaj na jot gi moo ko mayut moo tax mu yabal ñi nga xam ne doy nañ sëkk ay ndaw muy jiital Serigne Abdou mi ak njaboot gépp ci kër Serigne Abdoulahi borom dër bi ñoo ngi sant bu baax a baax ci turu Serigne Cheikh képp ku fi teew te xam dang da nga fee teew ngir jëmmi abdullahi ak jëmmi serigne mouhamadul amin muy digënté bu yagg bo xam li doyna doy na ci symbole muy lu am solo lo xam it serigne bi wax na ko bi it nee mi ngi bu baax mbokk yi ci ñu gëna yar njabot gi comme ni ndax na kat ab yar ni ko sëñ bay jaxate waxe am ab yaray tax ñu jël nit def ko tegg ci kaw ñàkk ab yaray tax ñu teggee nit ci kaw di ko kon nee moo ngi moo ngi soññee bu baax mbokk yi ñu gën a yar njaboot gi ñaareel bi nee na mi ngi soññee bu baax mbokk yi ñu gën a jàngal njaboot gi comme ni ko ñu leen di jàngalee fii ndax nee na kat Serigne Touba li mu santaane dëgg-dëgg mooy nañ jàngal gone yi te yar leen ndax wax kat ba dafa wax ne boo bëggee tabaxub société da nga koy jàngal waaye boo bëggee mabbub société da ngay fexe bañ nekk ay ignorant mooy ñu jàngut ci la wax ne kon mi ngi leen dénk bu baax ñaari bayit yi nga xam ne Serigne Touba da ko wax xam-xam kat ak leer la ak leer la comme bët ni muy leerale leeru bët ni muy leerale nit bëtu nit ki ba tax muy dox guddi gi lëndëm ba noppi di gis nee na xam-xam noonu lay mel Sëriñ Tuubaa nee na al ilmu lin nafsi nuuran nuurun tustadallu bihi ala al aqaiqi misla nuuri lil ayni nee na mi ngi dénk njaboot gi ñu jàng te yar njaboot gi nee na it Sëriñ Tuubaa mi ngi dénk ba tey waxi sëriñ bii nee na it waxi sëriñ bi li mu wax ne xam-xam kat day dundal nit comme ni nawet bu tawee ba ndox mi ni muy dundale gàncax gi noonu la xam-xam di dundale nit kon mu ngi soññ bu baax a baaxee ñu yar njaboot gi te jàngal leen ñu jeexal rek ci euh, wax ji nga xam ne Ahmad Shawqi da ko waxoon bu njëkk te sëñ Abdoulaye jëmmal ko bu baax a baax sëñ Abdoulaye danaan wax ne na jiital xam-xam ci wutum koom ndax xam-xam dana andim koom waaye am koom du indi ala du andi Ahmad Shawx yi dëggal loolu di tënk ko ci ay bayit daan na yow mi nga xam ne yaay sàkku alal ak lu mel ni alal gis naa la yaw nga doon koo xam ne amoo xel amoo diine ndax nee na li la war mooy nga dem sàkku ji xam-xam ndax amoo dara lu ko mën a remplacer te nanga nga xam ne kat yowmal xiyaam lépp lu nit di denc xam-xam moo ca gën a yàlla ci liñ ko denc ndax mu ne xam-xam kat lu man di def dafi sax ndax sallallahu alayhi wa nee na nit bu faatoo ñettam ñep leppam day dog bam dess ñett ñett yoy bokko na ci xam-xam bu ñuy jariño motax ahmad shawkhi ne xam-xam kat fi dess ba faawu waye alal as ndir la fi nek dem yonam kon ñoo ngi sant bu baax ci turu serigne bi di dalal ñep ci sunu kër di yeeslu bu baax a ci suñu jaayante ci serigne Touba di ñaanal yalla lepp luñ ci wax muy lu deung ci ñun la waye lepp lu ci jup taba ca ci serigne Cheikh la ak ndigalam ci ci jaar ci mboolem njabootu sëriñ Abdoulahi borom dër bi euh, xaj na nag lu baax du doy te it yu mbégte la kaddu yu cant la kaddu yu contentement la waaye nañ jël li baax ñu sante ko yàlla subhanahu wa taala mu fayal ne ko sëriñ Tuuba li ci sikk ñu xam ne suñu jëmm ju bépp bopp ji la ju xeebu ji waa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon daanaka day bëgg a doon aada ci man waaye lépp mat na ci discours yi fi jàll euh, li mat a sant mbirum sañ Touba te dolli ci dool ñu man cee dolli dolli ku yaakaar jataay bii wane na ko ndaw lu tuuti ngay magum jëm xale bu tuuti jàngal la lu bare bare bare ci mbirum sëñ Touba ak njabootam loo xamuloon loolu mu laa bu am solo la bo xamanteni ni ko bayyi mu passé inaperçu xalé yu tuuti di la jàngal sëñ Touba di la jàngal sëñ borom dër bi kan ngay magum jëm wallahi lolu doyna naa ye dolli ko yaakaar ci ni mbirum seigne Touba lepp ci kanam rek la jëm ku teye mu dem ku téyewul mu dem moko yoral boppam lolu dafa leer fii ci sunu rew mi senegal dafa am tuuti lu ñuy ñumte lu ñuy dal ñumte li moy wallahi njabootu Cheikh Ahmadou Bamba gi bu ñu jàngatoon ni ñuy dunde ni ñu seeree adduna bi seen doxalin ci wàllu économie ak liggéey ak defar nit ba léegi Sénégal weesu na fi mu nekkoon ci at yi ñu toll di vingt unième siècle ñu commencé di def ay bassin de rétention commencé di def yarum jën kañ la ko Cheikh Abdoulahi borom tër bi defoon exemple boobu ñu ko bàyyi mu nelaw ak yeneen ak yeneen yoo xam ni ñun jité gi suñu kilifa tambalé ko ci seigne Modou mustapha ba ci Cheikh Mamadou murtada exemple biñu wane ci luy defar nit di defar am réew ci Sénégal buñ ci ko won wallahi Sénégal weesu na fi mu nak ndax nak lepp ci Sénégal ku ne am nga ci wàll ndax citoyen mo citoyen la waye li ñarañul Sénégal mom yàlla dafa dogal ci loxol seigne Touba la nek buñ ko xamé réew mi développer buñ ko xamewul dañuy tës ba sonu rek yaquudu lillahu bila shaytaani manaafi al bilaadi fi awtaani njariñ li nekk ci réew yi àdduna yëpp sëñ tubaa daf ni sunu borom dajale na ko teg ko ci andi ko Sénégal teg ko ci sama loxo man Ahmadou Bamba kon loolu tey bilaa seytaane la wax lool mbir la moo xam ne seytaane yëgul bi ko bi bi bi ko sunu borom di defal kon seytaane mënu koo yàq nan bàyyiwaat xel bu baax Serigne tubaa bàyyiwaat xel bu baax njabootam gi ak taxawaay yi nga xamante ni amoon nañ ko ci réew mi am ko ci jullit muy lu am solo barab bii ñu nekk dafa mat a warmaal muy Touba bay na entre parenthèse lay doon ndax ñoo tudd Touba te ku tudd tuubaa doo jàlle noonu barab la boo xam ni benn colonialiste mënu la wax ni la maa ko dogal sëñ Touba benn gouvernement benn état du la ni maa dogal fii sëñ Touba benn buurub àdduna du la ni maa dogal fii sëñ Touba kenn du la ni sama a dogal sëñ Touba Touba nañu vérifier histoire te xeex yu bari ci jamonoy buur yi xëccoo suuf a ko waraloon lu tax ñu daan romb tuubaa buur ba Jolof amoon na ci penku la am na ci Kajoor ci sowu la am na Bawol ah am na Saalum fu nekk amoon na buur kon fii dañ koo déggoon te ku ci nekk daa nga jàll fii tuubaa jàll ci beneen gox ngir wuti suuf tuubaa moom ñu di ko fi romb lu tax dafa am borom sëñ Touba daf ni sunu borom yaa ma jëlee fa ma nekkoon. andi ma ba fi ni ma suuf si maa la ko tànnaloon jox la ko yaa ko moom sëñ Touba ko dogal sunu borom moo dogal suuf si Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul sëñ Touba nee na maam ngor gu toll ni yàlla li may def mooy dama la fi daal defal yaari kër ngir jaamu la jaamu goo xam ne dama koy tekki liimaan lislaam lixsaan iman mooy gëm yàlla lislaam mooy mooy moo moo moo mooy mooy moo iman mooy gëm yàlla lislaam mooy jaamu yàlla ihsaan mooy rafetal ni ngay jaamu yàlla seigne Touba nee ñaari kër yoy genn gi mu tudde ko daru salam ngir law ko ci turandom wa ca aljana ndax wallahu yad'u ila daru salam bi ci des mu tudde ko Touba law ko ci turandom wa ca aljana ndax allatheena amanu wa amilu salihati Touba lahum wa husnu maab ni sunu borom ma ngi lay ñaan sama ñaari dekk yoy nga def ko muy dekk yo xamni danyi dañuy mucc ci lepp ba faaw dañuy neexit ba faaw Touba day muccu day neex bay aljana wallahi nasib lolu lolu garantie la ci seigne touba am ci doaul kabir bo demé li ma lay wax ca la nek li ma lay wax day am référence du ay léeb du waxi mbedd allahumma innaka xutta zimaami ila al ardi allati ixtartaha lii wa banaytu fiha daarayni li abudaka fihima bil imaani wal islaami wal ixsaan wa sammaytuhuma daara salaami wa tuuba tabarukan bihima fajaalhuma bi jaahi wasilati ilayka salimatayni tayibatayni assalaama min daari salaam attiba min tuuba ba tayibatayni day neex day am jàmm ba faw fii ne yi ñuy tiit ci àdduna bi yàlla na ci yàlla doole musal Sénégal ci barkeb sëñ Touba rawatina Touba Touba moom wax waxtu wu jub see nga dégg baatu terrorisme waaye sëñ Touba ni mu koy saafaraa yomb na du ay détracteur du ay kii ni mu koy saafaraa mooy ku dugg dëkk bi fàtte ko fi mu ne da ngay màggal gi ba màggal gi jeex doo gis kuy moytu terrorisme doo gis ku fi tudd baat bi ku dugg Touba fàtte ko ba kera ngay ñibbi noonu la ko sëñ Touba di saafara mu jeex kon sëñ Mame noo ngi lay delloo sant bu baax a baax di la delloo encouragé ci liggéey bu am solo bii nga def te sëriñ Abdou wax la ko léegi kàddu yi mu la wax jóge ci sëñ Cheikh di kaddu yu mat di kaddu yu kilifa di kàddu yu mat a topp di kàddu yu mat a dégg sëñ Cheikh day ku mat. sëñ Cheikh day nit ku baax sëñ Cheikh day nit ku tàmbalee ci sëñ Touba yam ci sëñ Touba sañ Cheikh day nit ku am fulla sëñ Cheikh day ku téyal sëñ Abdou lim ko bàyyee kooku bu la joxee message yóbbante loolu Mame mat naa déglu mat naa téye na ko déglu bu baax a baax te sàmm ko wàllu daara ji it yéen ndaw ñi fiy jàng na ngeen xam bu baax li leen seen bàyyi bëggal xam bu baax li leen Mame Bara bëggal xale bu tollee ci jàng jàng dafa metti da dul xam ki lay jàngal li la bëggal ndax njàng mi rek ngay gis waaye njariñ la moom sa bët du ca tegeegul ndax da ngay ndaw waaye lu metti metti na ngeen xam ni seeni wayjur lu baax rek lañ leen bëggal maam baaram mii leen teg ci seeni loxo lu baax rek lañ leen dëggal bëggal coono yi metti metti na ngeen ko nangoo muñ na ngeen góorgóorlu ci njàng mi na di déglu ndigal tey moytu ay tere <coughs> fii ji ci Touba. enseignement bi dafa mat a seetaat enseignement bi mat naa seetaat bu baax ruur mi bari na te nun noo ko war a mën a xeexal suñu bopp doomi daara xàmmee na daara doomi daara xàmmee na bu baax daara dañuy wax daara moderne fa tabaarakallah Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu rasuul moo jëkk a moderniser daara sëriñ Touba moo jëkk a jëkk a moderniser daara fu mu fekkoon daara nit ñi daanañ mokkal alxuraan ngir ñaari cause ñaari sabab benn bi mooy am na xeet yoo xam ne boo ca bokkee boo mokkalul daara boo mokkalul alxuraan doo am soxna kon nit daana mokkal alxuraan ngir am soxna loolu Sëñ Touba jëlee na ko ñaareel bi nit daana mokkal alxuraan ngir laawaane ko ay caaxaan la yoo xam ne dañ ko tàbbaloon ci biir alxuraan Sëñ Touba faxas na loola. bi mu dikkee tilim tilim yooyu yëpp daan accompagner alxuraan sëñ Touba dindi ko ba mu set wecc andi daara moderne mooy alxuraan nañ koy jàng ni ko yàlla wàcce woon jaare ko ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la ko taxoon a jógit muy defar nit defar jikko jaamu yàlla ak liggéey loolu it nañ ko def ci boppi nit yi def ko ci boppi dongo yi def ko ci boppi njaboot gi ñoo xam lan mooy alxuraan loolu mooy modernité bi Cheikh Ahmadou Bamba jëkk andi ci alxuraanul karim jëkk koo andi ci daara daara ju produire ku mel Cheikh Mamadou Moustapha daara mat daara ju produire ku mel Cheikh Mamadou Fadal daara mat ju produire ku Serigne Abdou ak Cheikh Moustapha Abdou Aziz domam modernité modernité modernité moy topi serigne touba nu xol lo nu xol fa lim nu nous nu nous ko lu nu nous amul jariñ ci sañ tubaa dong lu mën a jariñ ànd ak sëñ tubaa mooy li am solo gis nga fi mu ne li yëngul lépp yënguwul li xew lépp xawul xewul le 5 septembre 1895 bi gouverneur général taxawee woo sëriñ sépp ni bu dara yëngu Cheikh Ahmadou Bamba képp yëngu woon li xew lépp xewul luy yëngu lépp xew yënguwul sëñ tubaa rekk yëngu sëñ tubaa xew te du xew tubaa bi mu nekkee Mbàkke Kajoor ci diggante tuuti lay leeral rek ci diggante ànd ak sëñ tubaa ak wan ginnaaw sañ tubaa sëñ Touba bi mu nekkee Mbàkke Kajoor di jàngale xam-xam alquran li ak li aju ci xam-xam yépp mu di ko jàngale ba tabax ci ay góor yàlla yu mag rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam feeñu ko ci Mbàkke Kajoor ni ko soppil jàngaliin wi ngay jàngale mooy nit ñi bu leen di jàngalati nii la ñuy jàppe nii la ñuy woore nii la ñuy natte asaka doyul da fexe ba saafara li nekk ci xol yi ndax nit mën naa jàng bu jeexal téere yi jóge ci daara yi dem gën a gën a gën a gën a nuru golo wala jikkoy golo mu gën ko mu gën ko nuru golo loolu lépp mën naa am sëñ Tuubaa nag day defar nit defar defar loolu la ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi mu ne rëy tawat la li fay nit kaa ngi rëy saafaroogul nekkagul nit ku baax nay tawat la ngisal tawat la bëgg daraja tawat la xeeti tawat yooyu yëpp nag la rasulullahi xamal sëñ Tuubaa ni ko dindi ko ci nit ñi te def ñom ab yar ak i señ tuba bi mu mbolo mi bam daf leen ni sallallahu alaihi wasallam neena ma na ma soppi doxalinu daara ji kep ko xamni jang jang mo la fi andi won, man nga yewé ko waye ko xamni limu bëgg mom nga bëgg man nga fe dess and ak man señ mat lamine job dagana Nena, neena daara ji xaajalikoo ñaari xaj xaj ba ëpp dañoo dem xaj ba ëpp dañoo dem question bi muy bëgg laaj fofu rek la jëm ña dem kon jàng moo leen andi te jàng nañ ci Maam Mor jàng ci sëñ Touba kon kenn ëpp leen xam-xam tàggoo gi ñu tàggoo sëñ Touba demit yokkiwaat seen xam-xam a taxoon kon fañ demit xam-xam lañ fa doon wuti ña fa des nanguwaan ak sañ tubaa ña tàggoog sëñ Touba tàggoog sëñ tubaa may laaj nii ndax ña tàggoog sëñ tubaa dem kenn ci yéen xam na ci turu kenn ku bokk ci ñooñee bañ tàggoog sëñ Touba leen àdduna fàtte ña fa desoon jéblu ci sëñ Touba ba léegi ni ñu ngi leen di xam xam seenu njaboot xam seen ñu man ci yoon bi gën ci yoon bi ànd gañ ànd ak sëñ Tuubaa moo ko waral nan ànd ak sëñ Tuubaa te bañ a tàqalikoo sëñ Tuubaa bu dara dox suñ diggal sëñ Tuubaa lépp lu nangu mu dox suñ digganteeg sëñ Tuubaa dana nu yàqal adduna dana nu yàqal àllaaxira amul lu nuy wuti lu sëñ Tuubaa amul te boo amoon lu mu amul waruñu koo soxla eh? boo amoon lu sëñ Tuubaa amul noonu waroon na am ngor gu toll ni bañ a soxla lu sëñ Tuubaa amul foofu lan war a nekk ndax mag ñu nu meññ ak ñu jëkkoon a ànd ak sëñ Tuubaa foofu yi rek lañ nekkoon sëñ Tuubaa defal nañu lépp lépp sëñ Tuubaa defal nañu ko dafa wax suñu borom ni ko euh, euh, yow mi nga xam ni li nga yor du jeex yow suñu borom mi nga xam ne li nga yor du jeex jox nga ma ay xéewal yoo xam ne danga cee boole barke ci biir xéewal yooyu xéewal yoo xam ne itam du jeex àdduna ak àllaaxira waa ku sëñ tubaa taajal ndab lu dul jeex àdduna ak àllaaxira ndab loo xam ni tibb bu rëy jeexalu ko Giro jeexalu ko ëmb yóbbu jeexalu ko war nga rafetal sukkin wa nanu baye xel bu baax seigne touba seigne touba rek fi nak no ngi sante bu baax euh, seigne bi fi représenté ministre de l' euh wax ji wax wax ju am solo la na ci bu am solo wa gis nga daara rahas ko nun noko wara def am ruur dafa dugg ci dekk bi tayit yeen para d'élèves yi war ngeen ko xamé jo jo manan ki nañ ma baax daara daaraan yu tuuti yi nga xam ne ay pantre laa ki ruq yi ñuy làq ci koñ yi di bay wut ci sañ tubaay yu neex def ko ci buntu ba te wallaahi asim yàq seen njaboot bi yàq Sëñ Tuubaa liggéey bi moo ko tax a jóg mi ngi ci dëkk bi ñëw wut as koñ làqatu daaray koñ yooyu moytu leen ko ak ruq-ruqaan yooyu ñuy bind ay bayit yu neex te dara bu ngeen laajee seen xale yi dañ ñu lan duñu dañ ñuy tere ko fi sujjóot dañuy ñuy tere ko fi nangam nangam dañ ñuy tere ko fi nangam nangam yooyu yi nga xamante ni mi ngi ci dëkk bi ruur mi nga xamante ni tàbbi na ci daara yi ñoo ko war a seet seggal suñu bopp seet ko jéem koo génn ku moom sa dëkk nag yaa moom sa dëkk la la neex moo fa war a dox te ruur moomu mu ngi am ci daara yi daara ju mel ni ji ni fang nekk ci pénc njabootu sëñ tubaay yor ko ku ñëw xool sa doom na mu nekkee mu tari daal xuraan ca njaalbeen bi ba ca mujj ga daara yooyu moo mat a soutenir daara yooyu ñoo am ci dëkk bi yéen wàllu état ak diin ak la mënuñoo tàggale ko adduna ñu yor adduna dañ cee amul cër sëñ Tuubaa sax daf leen joxoon cër cër bi mooy nit bu fekkente ne moo la féete ci cërub adduna boo bëggee cohabitation bi rafet danga koy jox cër ba mu am waaye nag nga am fullay téye li nga am yéen li ngeen am muy seen wàll ngeen war koo mën a soutenir daara yi dimbali leen ci daara yi dimbali leen ci daara yi Touba waaye nag ci façon bi nga xamante ni noonu la sëñ tubaa tabaxe noonu lañ bëgg ko nu daara soxla na set daara soxla na condition de vie yu baax daara soxla na hygiène daara soxla na sécurité te kuñ dénkum réew dénk sécurité réew kon na ngeen nu doole taxawu ci fànn yooyu bu baax a baax a baax a baax waaye na ngeen yombalal itam nag nu def ci njaboot gi li nu sëñ Touba defloo ci njaboot gi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi nuyu mbokki jullit yi fi teew yëpp di leen nuyu ci turu Cheikh Sidi Moukhtar jaarale ko ci sëriñ Moustapha mii toog sëriñ bi moo santaane ñu teew fii teewal ko fi ci bis bu tedd bii nga xam ni bis mënu koo féete kaw muy bisu alxuraanul karim eh, maam Baara di ko def te di ko def ak mu jot muy bis bu am njariñ itam ndax lu baax lu mu baax baax am na koo xam ne bu ko gisee roy ca am na koo xam ne bu ko gisut nag xelam du ca dem ba mu da ca roy kon wane gi dara nekku ci kon kon Cheikh Sidi Muxtaar mi ngi seere boole mi ngi xam ne dañ fee toog ci làmmiñu sëriñ Moustapha mii cant yoo xam ni dafa jëm ci Maam Bara yoo xam ni amul fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem te danaa ci dellu si itam may nuyu njabootu sëriñ Abdoulahi gi nga xam ne dañu fee teew ñu tuddee sëriñ Abdoulahi bis bi ñi fi wax ñëpp li ci mat wax wax nañu ko du jar ñu ñu ñu di ca dellu naam tubaab nee na euh, booy waxaat ka waxaat. boy wax ak waxat mana njàngale la loolu la tuba wax wante nak wax nañ ko waxati nañ ko kon man jërut ma ci kon euh, ñoo ngi leen di sant bu baax ci taxaway bu rafet bi ndax euh, loolu rek moy li fi massa am dembu ak barki dembu kon serigne bi serigne Cheikh Sidi Muxtaar mi ngi am mbekté ci tuddé gi nga xam dañoo jël bis bi tuddé ko serigne Abdoulaye mi ngi am mbekté ci jël gi ñu jël bis bi tuddee ko Serigne Abdoulaye te Serigne Cheikh di léppam dara kam di ko déggal te nangul ko ndax am na lu ma ci xam ndax lu ci bari maay dem fa moom ne ko nangam kon loola am na lu ma ci xam kon Serigne baa ngi ci am mbégte bu baax di am mbégte ci njaboot gii mu yabal itam ñu dikk teew ci sunu kanam ndax ñoom ñëpp teew fi tey jii teewal fi seen wajur wa kenn du ci gan ci noonu dañuy dajeeg ñoom di jëf jëflante ak ñoom xamuñu ñoom lu dul yar ak teggin ak nangoo liggéey topp seen wajur nekk ci gannaawam kenn du leen dégg ci lu lu mu kenn ku nekk xam na ni béréb bii bu ngor la bu jom la lii rek moo fi mën a kon buñ jëlee daar alxuraan samp ko fi ay nit yu bari chaque année ñu ñu jàng ba mokkal am na ci ñoo xam ne dañuy demaat ci barab sax di ubbi daara di ubbi yeneen daara yoo xam ne fii la ba mokkal ba mën a ji loolu kenn mënu koo fay ndax boo nee nit baa siin mii rek ba mu ba mu man ko mu wóor la ne man na ko jéggal nañ ko jëggal la yow jëggal ñaari waajuram kon nag ki nga mokkal la alxuraan taxut kenn di wax kon ñu di leen dénk maam ngeen jàpp jàppale ko bu bu bu baax a baax ñuy gërëm mboolem ñi nga xam dañu fee teew rawatina nag bokk yi bokk yi nga xam dañu fee teew rawatina njabootu sëñ Moustapha bi dafa am jikko joo xam ne maam Baara su su fekkoon ni da koo jikko woo bi nga xoolee léegi nee nañu sëñ Abdou Aziz moo ubbi bis bi def na ci lim ci war a def nga xool gis sëñ Njiili mu toog nga xool gis sëñ Ahma mu toog nga xool gis sëñ Cheikh Corom yi mu toog ñi nga seqal sëñ Moustapha ñëpp ñii mag la nga mag ñii ñëpp a ngi nii ñi nga seqal sëñ Baara ñu di say wajur boole koog mag la itam ñi ngi nii toog sëñ Moustapha ngi nii toog loolu donc daanaka doy na firnde jikko mooy li am solo yonente bi sallallahu alayhi wa sun euh, yàlla tëgg ko ci dëkk Madina ak mën a jàng ak Fatima ak euh, Alimatu sax daa déedéet ci jikko rek la ko suñu borom tagg ne ko way naka laa laa waaw kon jikko mooy li nga xam ne moo am solo amul lu nit di am wala nga rëy la ko wala nga toll la ko nen ba sunu borom teg ci bëtam wala mu tagg la ci lu dul jikko ndax yorente bi la di yaa gën ñëpp ku ma bind yaa tax waaye ci jikko la ko tag tëgg ko ci ci leneen kon nag sa jikko ji nga xam ne moom nga am. ba ñi nga bokkal sëñ Moustapha ñëpp mënoon nañoo daje te ñi nga bokkal sëñ Baar duñ daje bu boba ñu ne ñi nga bokkal sëñ Moustapha tax ñi nga bokkal sëñ Baar ñëpp itam mënoon nañoo daje ak ñi nga bokkal sëñ Moustapha te su boba dañ nan bokk gee tax ñi nga bokkal sëñ Basiiru ñu ngi ni tok seigne Cheikh ngi ni seigne seigne seigne seigne sëñ ngi ni tok ñom ñepp ñi ngi ni tok ñi nga xam ne nga bokkal seigne Touba itam bo xolé ko bokkal seigne basir bokk ak mom seigne bar bokk ak mom seigne Touba sëñ bokk ak mom euh, seigne bar kon sëñ touba taxut kenn di wax kon ñi wara tew fi sa karam ñu xamni yow fi nga tek sa tank li gone nan fi fii la ah ñoom ñëpp nañ ci sa karam sëñ mustapha neena mi ngi la ci sant ci turu Cheikh sidou Moukhtar moko ko santaane itam Nak ndax kérok bi nga ñëwé diko wax bis bi ci sama kanam yalla dogal dag ma fek wo ma telephone de ni ma dikkel damay wax ci sëñ bis bi waye ba nga ñëwé fa nga ma fekk fa nga ma bañ ba nga démé itam li sëñ bi wax ci yow sa jom ba nga nu wanee dem sa jom la wax sa sa sa sa nangu kilifteef sag nangoo sonn ci moom yëmalewoo kook dara ak déggoo goo xam ni déggoo nga koog say bokk nga ñëwaat tey résultat bi ñëpp tekki seen ba bi nga na wonee ginnaaw kaddu yii la sañ bi seera ci yow kon nag ku lay ñaanal na la ñaanal yàlla may la fan wu gudd na la ñaanal yàlla mu may la wér ndax dañ ne doomi ñay kat jërut naan yàlla na nga rëy ndax bu dundee dana rëy kon yàlla na la yàlla may fan wu gudd wasalaamaaleykum wa rahmatullah وانني يكتك ربي شيخ عبد الله الى برم جن الجورنو لا اله الا الله حرم ني يكتك نيب دي سو بارم يكتك با نيب دي سو سيني نيول وان كو سيني با باري وان كو سيني با باري ñëwoon ko sëñ ba pare laa ilaha illallah lay sa kada waa ngoog léegi wëlbati ko nag jërëjëf jërëjëf taxawal ni ba sëñ Modou taxaw noonu ci digg waaw ñu jox sëñ Modou Baara mu jox ko kado bi jërëjëf Mbacke na ko ñëpp jël jërëjëf jërëjëf jërëjëf Mbacke sëñ sëñ Modou Baara mu ni mu ne ci turu sëñ Moustapha ci turu mu mu mu Cheikh Sidil Maxtaar yebal si ci barab bi yëkkati cadeau bi di la ko jox mu jëm ca Serigne Cheikh ne li muy symboliser noo ngi ñaan nga waxal Serigne Cheikh borom Daaru Rahmaan ni ko bu gisatee fu ci bëtam tege na xam ni seede la cofeelu sëñ Baara ci sëñ Abdoulahi borom jërë joon ndox cofeelu sëriñ Sidil Maxtaar la ci moom sëñ Cheikh ci boppam waaye ñun ñi suñu cofeel la ci yéen cofeel googi nag sëtam bii di maam Baara moo ko symbolisé jox ko moo ko ko jox moo ko dox moo ko wax fu bëtam tege ci kado bi rek bu mu fàtte maam baale ci ñaan fu mu bëtam tegee ci kado bi na xam ne atum bi Ibrahima bii atum sëñ Moustapha bii ak njabootam rekk fi ne jërëjëf ñu tàllal sëñ bi ñaan dem ci diplôme d'honneur yi dañ koy joxe bu sëñ bi demee bu kenn dem waaw dañ koy joxe sëñ bi dem ko la waaw ñu tàllal loxo yi sëriñ bi ñaan. waaw waaye ñun loxo yi.